ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma baad ibadallah ey yéen mbokk jullit yi tedd yi ñu ngi sant suñu boroom jalla waala bi nga xam ne jaam bi dafa war a sax di ko sant fu mu mën a toll ñu ngi seede ne yàlla rekk yeyoo ñu koy jaamu te yonent yàlla muhammad rekk moo am droit di jàngale nañu war a jaamu yàlla mbokk jamono ji ñu dund ñi ngi dund ci ay bis yoo xam ne mboole mi xolu jullit yépp ña nga jëng jëm makka imma ci ñi yàlla baaxe ñuy dem wala ñi yàlla baaxe seeni mbokk ki dëkkandoo di dem bal mboolem koo xam ne nii jëm na fa même boo ko xamul it nga xam ne demam boobee daa dem ngir teewal la fa ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal na yàlla yombalal mboole mu ujjaaj yi seen aj def ko aju jàmm goo xam ni la ñu fay delloo suñu tuyaaba yàlla dana ko boole jullit ñépp donte ne mbokk suñu xutbab tey mi ngi jëm ci lan mooy jubluwaay bi làqu ci biir aj lan mooy xikma yi yàlla def ci biir aj gàllawaay mbokk jullit xam leen ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala mooy alxakim amul lenn loo xam ne dana ko digal ay jaamam lu dul boo ko settantale da nga cay yéeg njëriñ boo xam ni day dellu ci ñoom ci àdduna dellu ci ñoom ci àllaaxira dellu ci ñoom ci seeni jokkoo mboole seen loolu nag buñ koy xool ci aj makka mbokk aj makka la nga xam ni moom lay gën a feeñal moom mooy ñu wéetal yàlla jalla wa ala suñu borom bi muy wax ak suñu baay ibrahim daf na ko wa is bawwana li ibrahima makaana al bayt alla tushrik bi shay'a ay yow ibra fàttalikul ba may dalal ibrahima ca sama néeg ba la ma ko santoon mooy bul ma bokkaale ak dara loolu kon muy la taxoon ñu tabax kaaba gu màgg googee la nga xam ne mooy sababu aj makka ba waaye mbokk loolu it boo ko seetloo da ngay gis ne mboole mi jaami yàlla mboole seen sunu boroom bi mu koy faratal ci ñun mooy ngir feddeli ne moom dong la ñu war a jaamu waruñu ko bokkaale dara loolee julli la wala lu mën a doon ca loolu it moo taxoon suñu boroom bind ay jaamam mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun bind ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma ñu jaamu ma ay ñu wéetal ma ndax mushrikuuna yi ñu ngi jaamu yàlla waaye problème bi mooy dañuy bokkaale ak seen borom mbokk bu ñu xoolee kii di jaabir ibn abdullah radiyallahu anhu bam ñuy nettali ajug yonente ba sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent ba day ba mu armale dafa daal di yëkkati wéetal yàlla mi ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam ahalla bi tawxid ca lañ ko dégg mu naan labbayk allahuma labbayk ay sama boroom wuy si naa la de ca maa ngi sax ci dile wuy si labbayk la sharika laka labbayk ay sama boroom wuy si naa la kenn yowul ñu koy bokkaaleeg yow cay itamit maa ngi sax di la wuy si inna alhamda wa nicmata laka wal mulk ay yàlla mboolem cant yi mboolemi xiiwul waa asamaan ak suuf mboolem moomeel gi yépp yow dong yaa ko ñeel laa sharika lak kenn amul ku ñu lay war a bokkaaleel amoo benn bokkaale mbokk kii aj makka bay aramal lii lay wax lii it lay continuer di wax mi ngi noonu ci place yu bëree bëree bëri kon ñu xam ni ngalla waay yow doomu aadama yi yow mi jëm màkk ak yow mi seetaan ña jëm màkk nga la way xamal li nga war a gën a nafar sa diine li nga war a gën a xool mbaa benn bokkaalek yàlla amul ci sa diine ji du doon ci say wax du doon ci say jëf ca foofee moom boo ca réussir la ca des fokk yàlla yombalal la ko ba nga tabbi aljanna amma foofu nag boo ca tarxiisee la ca des fokk nga tarxiisu ca ba tabbi sawara loolu mooy njàngat bi jëkk bi ñuy jëkk a jàngat ci aj màkk ñaareelu njàngat bi mbokk julit aj màkk dafa ñëw ngir feddali la nga xam ne mooy ak ragal yàlla xoolal ab tukki ni mu méttee ak la ca war a am ci yóbbaale sunu borom yàlla mu ni ngalawaay bu ngeen di dem màkk yóbbalu leen waaye xam leen ne la gën li ngeen di yóbbaloo mooy ragal yàlla fa inna xayra zaadi taqwa loolu borom bi ni yóbbal bi gën mooy ragal yàlla dalay firi lit yow doomu aadama yaa ngi ci tukki jëm ci sa borom de nit ñaa ngi dajale alal alal lu baax la njaboot gi lu baax la loo mën a dajale ci àdduna day la ca dagan lu baax la waaye xamal ne nag la gën lu doomu aadama di yóbbaale mooy la nga xam ne mooy ragal boroomam subhanahu wa taala ragal yàlla dong moo lay sauver ci xat-xat ya nga nar a jëm ci bàmmeel ragal yàlla dong moo lay nar a sauver ca jafe-jafe bi su penc ragal yàlla dong moo lay mën a musal ca safara ba nga nar a jàll suñu boroom mu nii thumma nunajji lazina taqaw wa nazuru zalimina fiha jisiya ragal yàlla dong moo yóbbal bi nga xam ne boo àndeek moom jéggi siraat tabbi aljanna loolu it borom bi subhanahu wa taala dolli ca na wa man yuazim sha'air allahi fa innaha min taqwa alqulub bokk na luy woññi ni nit ki ragal yàlla mi ngi ci xoram mooy ñu gis mandarga yi yàlla màggal mu daal di koy màggal na ko yàlla màggale kaaba ga la safa ak marwa la arafa la musdalifa la ak lépp lu aju ci aj makka googe mbokk aj makka bokk na jubluwaay bi ci gën a rëy mooy fàttali nit ñi dañoo war a baril zikrullah mbokk zikrullah mooy li nga xam ne amul lenn lu mën a sauver jaam bi musal ko ci pexe seytaan sauver ko musal ko ci lépp léppi xat-xat lu dul la nga xam ne muy zikrullah moo tax suñu borom jalla wa ala dañuy wax ne laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa ida afadtum min arafat fazkuru llaha inda almashari alharam wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min addalin ay yéen ñi nga xam ne da ngeen di acc ngal la way xam leen ne man ngeen sàkku seen gëneelu borom waaye bu ngeen demee ba jógee arafat dee leen tudd yàlla lu bari ca fi ñuy wax almashar mi musdalifa dee leen tudd yàlla ay di ko sant ca la nga xamee ne nii ca la leen jubal dugal leen ci lislaam déppale leen ak jaamu yàlla yu mag yi loolu it moo tax ba borom bi subhanahu wa taala dolli ca ni fa ida qadaytum manasikakum fazkuru llaha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra su ngeen ajee màkka ba aj ga jeex ngal la way sax leen di tudd yàlla lu bari comme ne yéefiree doon tudde seen bàyyi wala lu gën a tar loolu loolu mu lay wan yow mi nekk ci yoonu acc ak yow mi nekk sa kër ngal la way xamal ne sa temps bi amul lenn loo ko mën a taarale loo ko mën a jeexale lu gën a rafet foo toll ngay tudd sa borom jalla wa ala ci zikr ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim loolee nga la waay ñu bàyyi ci xel bu baax bal rasul sallallahu alayhi wa sallam sax nee na wër gi ñuy wër kaaba gi daw safa ak marwa sànni jamra ya nee na loolu lépp li iqamati zikrillah loolu lépp dañ koy def ngir taxawal zikrullah kii wër kaaba gi da koy booleeg zikrullah kay daw safa ak marwa naka noonu waaje taxaw arafa naka noonu ñiy sànni jamra naka noonu mbokk da ngay gis ni aj makka bokk na ci jubluwaay bu rëy boo xam ni dana ko jàngal jullit ñi mboole seen ña nekk ci aj ga ak ña nekkul ci aj ga mboole seen mooy wax jooju nga dégg ujaaje di ko wax ca mooy labbayk allahuma labbayk labbayka la sharika laka labbayk ay yàlla man de wuy si naa la ca itamit maa ngi sax di la wuy si amul kenn ku ñuy bokkaaleel mbokk jaamu yàlla bi lan moo ko war mooy topp yàlla def ay ndigalam bàyyi ay tereem suñu borom yàlla sant ñu ñu xalaat niñ koy jaamoo abadan suñu borom yàlla def ñoo wax déglu leen sami'na wa ata'na loolu mooy màndarga jullit dégg ak topp loolee nga xam ne mooy dégg ak topp googee nag tey jii bokk na lu lay jàngal aj makka ñii di aj makka ña ngay rayante ngir fóon xajarul aswad ba nekk ca kaaba ga di xeer benn xeer ñu rayante ngir fóon ko ñu teg ci ay fan nga gis leen ñuy buuxante di rayante ngir sànni benn xeer ca jamaraat ya lu tax bee ñu koy fóon lu tax bee ñu koy sànni xeer loolu ñun xamuñu ko waaye yàlla moo yoonal ñu fóon bi yàlla yoonal ñu sànni bee ay xeer loolu nag mbokk dali jullit da lay jàngal jaamu yàlla lépp mi ngi noonu li nga comprendre ak li nga comprendreul nga yemele képp sa mbir kay mooy ndax yàlla moo ko digle ndax yonent yàlla subhanahu wa taala moo ko jottali lii mbokk mooy jébbalul yàlla jalla wa ala waaye yow mi nga xam ne yaa ngi aj yaa ngi naan yàlla wuy si naa la ci aj gi te maa ngi sax di la wuy si di la wuy si ci lan ci lépp loo xam ne digal nga ma ko loolu tax nga la way yow mi nekk ci yoonu aj bàyyil sa xel nan nga wuy jee sa boroom ci yeneen jaamu yàlla yi lu mel ni jullee ngi nii aka bari ñuy dépenser des millions ngir dem aji ji makka te jàkk ji nekk seen koñ bés bu nekk noddukat baa ngi taxaw ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammad rasulullah hayya ala salaa seede yàlla kenn la muhammad yonent yàlla la kaay leen ci julli kaay leen ci texe te loolu du la yàqal sa benn programme te foofu amul lenn looy dépensé quelque part ngay dem ca jàkka ja loolee kon boo fa jógee di dépensé des millions jëm makka loolee mbokk mën nañ xalaat am na leneen lu làqu ci gannaaw loolu waaye bu doon yàlla dong la tax a jóg keroog bañ la woo kaay julli ji waxtu julli juróom ca jàkka ja ngal la waaye loolee da nga ko wuy ji waaye ngal la waaye gannaaw jàkka it suñu borom yàlla digal nañu suñu alal yii ñu génn ci zakat ca génn zakat moo gën a kawe aj makka loolu ñu bàyyi ko xel bu baax aj makka li muy baax baax taxawal zakat moo ko gën a rëy ponk bi gën a rëy ci diine gannaaw seede la ilaha illallah muhammad rasulullah mooy taxawal julli waaye ñaare mi ngi noonu mooy taxawal julli mi ñaareelu ponk ba waaye ñetteel ba mooy génn zakat kon yow mi nga xam ne yaa ngi génne des millions pour aji ji makka sa zakatu alal peut-être un million kese la te mosoo génne zakat mooy yow xamoo ban philosophie mu nekk ci biir aj ndax philosophie aj mooy labbayk allahuma labbayk yàlla wuy si naa la ci aj waaye maa ngi sax dina wuy si ci lépp loo xam ne sant naa la ko waaye moo ko gannaaw digal yi waa ji naan labbayk allahuma labbayk yàlla wuy si naa la maa ngi sax dina wuy si sa borom yàlla nee na yaa ayuha allazina amanu labbayk allahuma labbayk zaru ma baqiya min riba bàyyi leen riba suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na yaa ayuha allazina amanu labbayk allahuma labbayk innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlam rijsun min amali sheytan borom bi woo nañu juróom-ñetti fukki yoon ak juróom-ñetti ci téereb yàlla bi maa ngi ñuy tere riba maa ngi ñuy tere sàcc ma ngi ñuy tere njabar ma ngi ñuy tere ay seet ma ngi ñuy tere carte ma ngi ñuy tere lekk alalu jirim ma ngi ñuy tere njaaloo loolu lépp nag mbokk julit mooy julit moo taxaw naan labbayk allahuma labbayk ay yàlla wuy si naa la ca maa ngi sax di la wuy si ci lépp loo xam ne diggal nga ma ko maa ngi sax di la wuy si ci lépp loo xam ne ni ñuy tere nga ma ko donte ne wuy ji googu ñu wuy ji borom bi it daa war a ànd ak wuy ji yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu àndee ak sahabatul kiram ñu dem ci at ga ba sahaaba yi di wax labbayk allahuma labbayk ay sunu maam ibrahima woote na ci ndigalu yàlla labbayk allahuma labbayk ñu ngi ñëw wuy si la yonent bi alayhi salaam da caa teg ne li taaxuzu anni manasikakum xam leen ne nag ni ngeen di aje maa ngi leen ci jiite nii xam ne ci man ngeen koy war a roye loolee mbokk benn misaal la nga gis ko jaaj ya ña nga dem makka ñaata yoon la ñu war a kaaba ga juróom-ñaari yoon lu tax waruñu ko juróom benn déedéet yonent bi jàngalul loolu juróom-ñaar kay xanaa fukk moo ko ëpp lu tax defuñu fukk wala fukk ak benn yonent bi jàngalewul loolu safa ak marwa it naka noonu arafaat lu tax defuñu fa ñetti fan wala juróomi fan ah yonent bi moo jàngale noonu mbokk loolu ñuy gis ci aj màkk it la ñuy gis ci mbooli mi jaamu yàlla ngalla waay sa julli gi xamal ne bala ko yàlla nangu nga dëppale ko naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee mi ne woon sallu kama raaytumuni usalli julli leen ni ngeen ma gis samay julli noonu lay am ci sa mbooli mi jaamu yàlla mooy yonent yàlla mi nekk sa imaam ci lu mu mën a doon ngalla waay mbokk jullit xam leen na aj màkka it gannaaw loolu mi ngi ñëw ngir jàngal ñu jukko ju rafet xam leen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ki may gën a jege ci jullit ñu yowmal qiyaama mooy ki gën a rafet jukko ci yéen daana wax amul lenn loo xam ne dana diisal balance doomu aadama yowmal qiyaama gannaaw ragal yàlla lu dul la nga xam ne mooy jukko ju rafet jukko ju rafet nag la ca jiitu mbokk jullit mooy téye sa bopp ba doo tooñ kenn waaye not sa bopp ba ku la tooñ nga mën koo baal loolee moo tax ba suñu borom jalla wa ala nañu fa man farada fihinna alxajja fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxajj wa ma tafalu min xayrin yalamuhu llah gis nga suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne yow mi nekk ci aj makka ngalawaay lépp loo xam ne ci waxi caaxaan wàllu sëy la bokk ba ko lépp lu jëm ci wàllu génnuk topp ci xuloo ba ko lépp lu jëm ci dàggasante ba ko waaye mu teg ca ne it lépp lu ngeen def ci lu baax yàlla xam na ko muy wane na kon aji màkka ci tukkeem boobu nga xam ne dafa war a nekk benn entraînement bu muy dund ci dundam ngiree bu ca jógee loolu lépp mu am jeexital ci restu ci dundam loolee la ko suñu borom yàlla sant mooy téyel sa bopp bul xuloo bul xeex ki li indil xuloo laa ji daal bul dàggasanteeg moom loo man ci lu baax na nga def ko lii mbokk da ngay gis ne moom mooy la ñu suñu borom yàlla dig de képp koo xam ne nii dem na makka dafa fa lenn lu ñaaw waxu fa lenn lu ñaaw rajaaka yawmi waladatuhu ummuhu comme na ko yonent bi alayhi salaam nettalee lii mbokk da ngay gis ne aji makk aji aj makka ji mooy jubluwaayam ba gën a màgg bi muy def gannaaw loolu mbokk ab julit heure boo xam ne nii mi ngi génn këram dem ba place ba muy armale rawatina yéen góor ñi nga summeeku ba set lambaayoo ak lambaay génn di dem ca borom ba loolee lam lay war a fàttali yow mi at ak yow mi toog di seetaan ñuy at ah gis ngeen kii kat li mu defal boppam bis dana mës a ñëw ñu defal ko ko mooy doomu aadama yi jullit bu nekk bu ko yàlla mayee chance bis dana ñëw ay mbokkam summi ko ay mbokkam daal di koy waddu su boobaa ma ngay wax labbayk allahuma labbayk ma ngay wuy ji boroomam jalla wa ala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne gaawee leen niiw yi ndax nit ku baax gi lu ngeen gaaw gaaw moom gën naa yàkkam ci loolu mi ngi jëm ci boroomam su ko defee ujaaj bi loolu lay bàyyi xel bis na na ma sa ñëw nii ma génn sama réew génn sama lal génn samay compte samay lépp daal di jëm ci borom bi bis na na ma sa ñëw ma génn ni àdduna wuy ji sama boroom loolu nag di wàccaay boo xamee ne nii ku nekk ci ñun daf caa war a bàyyi xel ñaareel ba it dana la jàngal yow mbokk julit noonee nga jël wadd sa morom wadd nga dajeeg chinois bi mu wadd nga dajeeg yow général bi ak sa soldat mu wadd nga dajeeg ila axiri dana la jàngal ndekete julit ñi ñoo bokk ndey ak bàyyi ndekete gën a lent bi nekkul ci alal ji yàlla ëppalente ci ñun wala grade yi yàlla ëppalente ci ñun wala kii daa weex wala kii daa ñuul waaye gën a leen te dëgg-dëgg mi ngi nekk ci ragal yàlla loolee mbokk da ngay gis ne bokk na loo xam ne lu ñuy jàngal keroog bi ñu demee ci biir Kaaba ga di wër Kaaba gi di roofal ak chinois yi di roofal ak indonésien yi di roofal ak américains yi loolu lépp muy wane ne diine l'islam mi ngi ni mooy diiney booloo mooy diiney jaxasoo mooy diiney yaakaar kenn kese muy yàlla diiney ku nekk ci ñun jàppale sa morom sa doomu ndey la waaye du sa boroom loolee mbokk lañu aj màkk di jàngal ci philosophie màgg boobee nekk ci wër kaaba ga tey yow mi nga xam ne yaay daw safa ak marwa nga la waay yaa ngi fàttali ko benn tawakkul wékku gu rëy goo xamee ni nii benn famille defoon na ko famille munta paase jëkkër jabar doom ibrahima alayhi salaam ma nga ca Syrie te Palestine suñu borom ne ko jëlal sa soxna si nga xam ne mi ngi doog a am benn doom xëy na ñaar fukki at la am masalan wala ñaar fukk ak juróom yóbbu ko à 600 kilomètres de fi nga nekk gannaaw ba bàyyi ko foofu moom dong kenn nekku fa amul ndox amul mbay loolee soxna si taxaw ne na ko waa Ibrahima fii nga ñuy bàyyi Ibrahima faaliwu ko di dem gannaaw ba mu ne ko ndax yàlla la ko sant mu ne ko waaw mu ne ko kon demal yàlla lu ñu seetaan loolu it lan la ñuy jàngal yow góor wala jigéen mooy tànk yaa ngi sax ci ndigalul yàlla yàlla du la seetaan lépp loo bàyyi ci yàlla tax yàlla du la seetaan lépp loo jóg jëm ca ca yàlla kese tax yàlla du la seetaan demal yàlla du ñu seetaan donte ne it soxna su baax soosu mi ñuy jàngal gëm na ne yàlla du ko seetaan waaye gëm na ne it la ko yàlla may ci sabab da ko war a jëfe looloo tax ba mu demee ba ndoxam jeex ba doomam ju baax ji di jooy gis nañu ne toogul rek naan ya allah ya allah waaye dafa daw ba safa di xool ndax dana gis ay njëgg juy jàll ngir mu ñaan leen ndox gisu ko mu daw ba marwa gisu ko diggante bi nekk presque 400 mètres daw na ba daw lu jege 3 kilomètres ca la ko yàlla doog a xettali jibril ñëw këdd suuf ndox mi di génn Haajara def na 7 tours waaye la chaque bu gisul woon ndox it mën naa dem ba 17 wala 20 tours loolu it mu lay jàngal yow ndawal julit ngallaawaay lépp loo xam ne yaakaar nga ko ci lu baax góor góor lu ca ca bul découragé sakku xam-xam la tukki ut alal la. lépp loo xam ne nii lu lay jëriñ la ci wàllu faju la ci wàllu lu mën a doon mbokk jullit du découragé rawatina ci wàllu sëy dugg naa ci sëy baaxul dugg naa beneen baaxul man daal góor ñi moom pare naa ci ñoom erreur mënut a passé loolu abadan ndax amagul nga juróom-ñaari jëkkër et pourtant Haajara ngi nii yàlla mën na ko xecc li ci bu njëkk ba teewul mu seetaan ko mu def juróom-ñaari yoon takk naa jabar baaxul takk naa beneen baaxul takk naa beneen baaxul ndax yeggagul nga ci juróom-ñaari jabar laa mbokk julit julit du découragé tant que yaa ngi xam ne lu baax am na da nga koo war a sakku di ko wut ba baa yàlla subhanahu wa taala dina dëppale ak moom ca tant que yaa ngi boole yaakaar yàlla ak sabablu ak ñaan yàlla ñett yi kenn du ko boole ba pare yàlla di tas yaakaaram lu mu yàgg-yàgg yàlla dana la xett di mbokk la nga xamee ne nii it moom lañ cay tëjee mbokk mooy jamra yooyu nga xam ne yéen a ngi gis ñu koy jël di koo sànni loolu da ngay gis ne bay ibrahim keroog ba mu jógee ba nga taxaw ndigalu yàlla seytaane dafa ngemb yàq xelam ibrahima ay gént noo ci rey sa doom loolee ndax benn yoon la ko def déedéet ibrahima sànni ko xeer découragé wul mu dabaat ko beneen place mu sànni ko mu dabaat ko beneen place mu sànni ko mooy ñetti jamaraat yooyu nga xam ne dañ koy sànni loolu lu mu lay jàngal mooy yow julit xamal ne yaa ngi am ñaari mbir yu am solo benn mbir mi war ngaa góor-góorlu def effort jëm sa borom waaye ñaareel bi it xamal ne am na ay noon yu nekk sa gannaaw di la xëcc di la tarxiisal ngiree nga dellu gannaaw ngiree nga daanu ka jiitu ca noon yooyu mooy seytaan waaye gannaaw loolu bànneexu bakkan a ngi nii yéeféer yaa ngi nii naafiq yaa ngi nii kàccoor yu bon yi bëggul gis ko jaamu yàllaa ngi nii ñooñu waa Màkka ñu ngay jël ay xeer di sànni xeer waaye ñu mel noonu it war nga leen a sànni ci sa xol ci sa làmmiñ ci say jëf góorgóorlu boo ko deful rek daan nga yàqal sa diggante ak sa boroom mbokk aj makka nag la muy jeexal mooy lay jeexal daje doomu aadama yi doomu aadama yi ñi ngi teqali ko yàlla dana leen mës a dajale bu leen dajalee fam leen di atte yowmal qiyaama gannaaw ba teqaliwaat leen ñii mu yóbbu leen aljanna yal na yàlla boole ñu ca ñee mu yóbbu leen sawara yal na yàlla musal ñu ca loolu nag mooy ponk bi gën a mag ci aj màkka muy arafat arafat ñi jóge woon Inde ñi jóge woon Pakistan ñi jóge woon Amérique ñépp da ngay gis bis boobu ca la ñuy daje mboole seen ci benn place yaakaar benn boroom jublu ci benn boroom xam ne yàlla dong mooy aji bind ji yàlla dong mooy aji dogal ji yàlla dong mooy ka nga xam ne mooy yor ndigal ci teral ay jaamam wala toroxal leen loolu it yow mi aj màkka wala yow mi sitaat ñu aj màkka lam la war a jàngal may nga waajal daje bu màgg boobee ca la gën a màgg la nga koy waajal mooy wéetal sa borom bañ ko bokkaaleeg dara taxaw ci ay ndigalam bàyyi ay tereem yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci ñi muy teral adduna ak alaxira yal na yàlla subhanahu wa taala yombal aj màkk ak ren gi yal na ci yàlla def jàmm def ci aafiya yal na yàlla wàcc ci ay xéewalam yuy baawaan ci julit ñi adduna di baawaan ci ñoom ci alaxira yal na yàlla rafetal suñu mucc te defal ñu àddina muy suñu wàccuwaay suñu borom yàlla wàcce nañu taw bu bëri ci suñu réew yal na yàlla barkeel ko yal na yàlla yeggale nawet bi ci jàmm ak barke allahuma rabbana atina fi الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين